Ui, wah. На волоски. На тесто. Как мы идем? kenn kii rek lay nekk boof mën nañ wax euh, donc tey sama Mami Gueye euh, muy global business mm-hmm. donc Mami yàgg Mm-hmm. vraiment naa ñu bëggoon a xam ak tabaski bi naka la business yi comme yéen global business ngeen tudd naka la dëkk bi doxee par rapport ak njënd mi parce que maa ngi la gis nii yaa ngi nekk di defar ay cheveux donc euh, ñu bëggoon a xam daal ñu ngi nuyu ñëpp wax ñëpp déwénati baal leen ñu àq baal nañ leen yàlla boole baal fii nag gis nga ko nii mooy global business nek en eh, face pharmacie Ahmed Fay bo beugé ñu tegal la ay greffage ñëpp ñëpp xam nañ ma ci teg greffage sa ay périg yu baax gis nga ko ni ñu and ak closure ak yépp la défar fi global business gis nga yi yépp fi lañ koy défaré diko jaay bo commandé sa ñu jaay la indi la qualité bu baax tamit. li mom li mom à peu près fi la né ko ko doon jënd ñaata nga koy jëndé ko doon jëndé bi ni yow ko dama bëgg a fii 60 000 rek lay jar coupe carré la 60 000 bu am closure li nii 50 000 lay jar blonde la fa xew sa jamono gis nga de ay 40 rek frisé yeeg yëpp fi daal. ak prêt à bi. mais est-ce que dëkk bi par rapport ak loolu est-ce que nit ñi ñu ngi doon ñëw di jënd par rapport ak année yi passé ah waaw waaw fu nekk nii ñu ñuy indi woon yëpp jeex na gis nga nii jeex na lii ay commande la seen boom léegi lañ koy jël si. jeex na li ñu indi woon yëpp jeex na ah, waaw. waaw marché de. <laughs> léegi lan ngay wax ñaanal Bambey TV. ah Bambey TV nag mooy suñu télé ndax kenn mësul gis moom fi Bambey TV di def vraiment yéen a ngi ñuy leeral lu nëbbatu woon génne ngeen ko Bambey TV daal moo ko yor on est avec Bambey TV waaw. <laughs> Yoga ni fanyalo salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Bambey ñu ngi jiite di nuyu Bambey TV bi nga xam ne mooy télé bi ñoo ko moom ñoo ko ubbi et que rek moo ko tax a jóg ak lu soxal Bambey avant tout je me présente Baye Mor Ndong lañ may xamee dañ may wooyee mais sama beneen nom c'est Pape Mor Ndong dëkk Bambey di doomu Bambey nekk fii di jaay fii ci Carrefour Général ay accessoires téléphoniques ainsi de suite ak yeneen ak yeneen du leer di def transfert d'argent Wari Tigo Cash euh, Orange Money ainsi de suite mais def difficulté yi waré am fi au niveau de Bambey nonu ban jangane nga ci am. waaw waré mom difficulté yi sonal bi torop parce que comme Bambey amul ay banque amul ay gap yu doy te ñun fi ay retraité rek daanaka ñu ko te loolu la ñuy poser problème parce que da ngay dem ba sa kees jeex dootoo amaat euh, liquidité. doo am possibilité dem ci yeneen banque yi di ko tuur dem ci banque yi ñu ngi dagg sa xaalis di la def ay débiteur yoo xam ne day dalay topp ay 3 mois 4 mois loolu daal moo nekkoon suñu jafe-jafe au niveau de Bambey surtout ci ci war bi quoi côté war bi mais quant à Orange Money moom bon jafe-jafe yu bëri mais ñàkk banque bi nek Bambey. lolu aussi ban ban message ngay lancer population bi est-ce que tamit dañu wara accepter di passe di dem djourbel alors que Bambey nek deuk bu mak am université am lu ne ba paré ñun chaque jour ay plus de 1000 personnes di passe di dem djourbel di dem ci ay banque. waaw waaw lolu metti na trop parce que Bambey dafa wara dafa wara a développé te dëkk buy développé wax dëgg yàlla war naa mën am ay banques banques yi war nañoo mëna ñëw parce que am nañ fi ay espace am nañ université am nañ lo xam ay.

ndaamal daaru Carrefour général la nekk bon sama numéro téléphone 77 782 70 99 76 523 21 34 loolu mooy sama numéro téléphone bon ku ma soxla ak ci lu mu mën doon parce que man doomu Bambey laa te luy jëmale Bambey kanam rek ku fekk moom dafa na may bàyyi. looy ñaanal Bambey TV TV ca kaw yàlla yokk ko ba. fi mu commencé nii mu romb foofu bi fa ñuy dégg ay canal a ay ay ay muy dégg fa Bambey TV quoi parce que suñu sax la. amiin amiin merci jaajëf te